loo indi tey jërëjëf euh, soxna Fall lii de onze mois la euh, ci ginnaaw mooy xale bii di tudd euh, Matar Gueye ak ki nga xam ni moom mooy Moodu Bopp ñoom nag onze mois ñoo ngi ci prison bi lii leen ko andiloo nag mës naa ko fee jàllale mooy station Total bi nekk Touba dañoo reyoon ki nga xam ni moom moo doon gérant Total ki station bi nga xam ni reyin gu gu doy waar reyin gu méttee méttee métti lañ ko lañ leen lañu rey ki nga nga xam ni moom mooy euh, Baye Baara Cissé Baye Baara Cissé nag euh, nga xam ni moo doon kilifa station Total bi nekk euh, Touba dafa am benn moom julli na Euh, li nga xam ni seede yi wane na ni julli na timis ba pare parce que am na koo xam ni mu waxtaan naak moom ah, avant bi ñu jullee timis ba pare bi ñu jullee timis ba pare ci la benn pompis euh, dem euh, ci li nga xam ni moom mooy ci bureau bi fekk ko mu tëdd bi mu tëddee nag moom Baye Baara Cissé bi mu tëddee pompis bi woo koo xam ni yor na benn Euh, super euh, supermarché épicerie ci wetam mu ñëw bi ñëwee gis Baye Baara tëdd euh, ci la ñu woo police police ñëw def constat bi jël ñaari pompis ya fa nekkoon bi ñu leen jëlee nag yóbbu leen déglu leen bàyyi leen woowaat leen déglu leen bàyyi leen waaye ñetteelu woo bi ci lañ woo euh, Matar Gueye ak Moodu Bopp euh, bi ñu leen woowee nag ci lañ leen ni leen tase ca station ba bi ñu tasee si station bi ci la policier wax ni leen euh, déglu nañ leen waaye procureur moo joxe ndigal ni nañ leen arrêté ba koroog ñuy xam ñi def jëye ji foofu nag dañ ciy taxaw moom mooy ndax dañoo war a arrêté rek ay nit ba koroog ñuy xam ñi def jëye ji wala enquête moo war a wane ni ñii dañ leen a war a téye wala ñii dañ leen a war a bàyyi xale yi moment bi nga xamee ni muy ñi nga xam ni mooy seede yi nga xam ni ñoom ñoo wax moment bi nga xamee ni woote nañu ki njëkk ci lieu de crime bi nee na bi ma ñëwee damaa fekk euh, euh, dreetu bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi euh, kii siise mel ni lu xaw a way kon xale bi kon bu dee dafa way mooy xale yi reyuñu si saase dem woote wax nañu tamit ni diggante vingt heures ba vingt deux heures euh, ku miin station yi miin nañu ni station yi day occupé ci moment boobu parce que clando yeeg taximaan yeeg njaga njaay yeeg tata yi heure yooyu la ñuy car rapide yi heure yooyu la ñuy la ñuy solaat euh, euh, ci essence pour seen seen suba moment boobu nag lañu ñu ni euh, la police jàpp ñaari xale yooyu benn moom mooy xale yi bi ñu xoolee ñoom journée bi ñi li ñu liggéey muy ki nga xam ni mooy euh, Matar Gueye ak euh, Modou Bopp gis nañu ni seen xaalis manqué wu beneen bi moom mooy bi ñu xoolee bureau bi nga xam ni fa la Cissé nekkoon xool nañu ni xaalis bi nekkoon ci bureau bi manqué wul lan moo manqué kon bi ñu reyee ki nga xam ne moom mooy Cissé mooy portable service am la ñu yóbbu portable personnel am dañ koo bàyyee moom portable service am dañ ko yóbbu foofu dañ see bi ma ko déggee man dama see ubbi beneen enquête bu lu waral ñu yóbbu portable service bi soxna mooy euh, Baye Talla Cissé su ma juumul ci tur bi euh, dafa moom da doon liggéey ak euh, Total ni muy doon liggéey nag mooy partenariat la woon mooy xaalisam la doon jëmbat comprendre nga. Mm. Total di ko jox. mu mel ni licence bi lañ ko luyee maanaam mel ni licence euh, total du ko luyee licence bi pour mu utiliser euh, turu total mën jaay li nga xam ni moom mooy essence xam naa ne techniciens yi ñooy gën a miin côté boobu léegi nag doon na wax ni total lim liñ ko yoreel liñ ko yoreel ci xaalis nañ ko ko jox parce que dafa mag la léegi te day jëm day dem ci li nga xam ne moom mooy retraite léegi nag ci moment boobu dafa am euh, dafa am fu mu doon denc xaalisam euh, fi mu doon denc xaalisam nag euh, moom mooy Total Énergie mm-hmm. ci seen application boobu nga xam ne ñu waa Total ñoom ci la ñuy denc li nga xam ne mooy xaalisam wax nañu ni moom moom moom ki nga xam ne moom moo faat di bàyyi baara siite ñi mu waxal wax na leen ni leen fan yëpp maa ngi topp Total pour ñu jox ma sama xaalis ndax damaa bëgg a dem retraite nga xam ne su boobaa nag total moom moom mooy jëlaat station bi jox ko keneen léegi nag li tax lu tax ci moment boobu muy muy laaj di préparer retraite am ci lañ ko rey kan moo ko rey lu tax ñu bàyyi portable am bàyyi xaalis ba mu fa liggéeyee bàyyi mooy jël li nga xam ni moom mooy portable service am question la boo xam ni ñëpp dañ koy laajte mais beneen leneen lu nekk ci ginnaaw lu ma gëm leneen lu bokk la waaw ndax xale yi nga xam ne ñoom lañ jàpp bu doon ñoo rey soxna xaalis bi ñu liggéeyee dina manqué ci tournée boobu bu doon moo ñoo rey mooy xaalis bi nekk ci bureau bi wax nañu ni manqué wul mhm. kon xaalis boobu day manqué su bëggee mu leer dina leer dina leer beneen bi moom mooy xale yi nga xam ni waa ji mooy seen patron te di leen fay weeru dee ñaara taxoon ñu war koo rey mooy ñu ameel ko bor mhm. bëgg bor bi nëbb parce que gis nañu ñoo xam ni seen bor a tax ñu rey wa euh, seen xarit wala euh, ki seen partenaire bi nga xam ni wala ñu ñu reyoon ko ngir sàcc xaalis bi ginnaaw ñaar yooyu yëpp amul ñoom amuñu intérêt pour rey ko parce que moom ci moom la ñu nu mu tëddati moo leen di fay par mais beneen bi moom mooy bi nga xamee ni euh, caméra de surveillance bi moom daan na sàq moom daan na sàkku total service bi nga xam ne mooy total. Mhm. pour pour monter li nga xam ne mooy caméra de surveillance ci total ci estation bi dañ ko koo lànkaloon ci information yi ma am. Mhm. ba nga xam ni euh, épicerie bi dend ak moom moom caméra de surveillance yi nga xam ne jot na ko muy vidéo yi nga xam ne jot na koo am mooy gis na ku ñu gaare ñu gaare ci oto bi mel nii. ku ku doon ku kuy sol essence gaare mhm. ci wetu euh, bureau euh, Baye Baye Baye Baye Baye kii Cissé Baye Baara Cissé mais foofu rek la caméra la caméra surveillance bi yem parce que mënta mënta mënta jël li si des parce que parce que bi muy def caméra de surveillance total taxul woon mu di ko def mais boppam la doon defal mais am na angle boo xam ne mën na koo jël bi ñu xoolee ñaari pompis yi tamit mooy ñoo ngi doon moment boobu ñoo ngi woon seen poste ba gis na fi nga xam ni mooy euh, benn pompiste bi bi muy jógee ci postam mhm. parce que lan la doon wut lu jar a xam na lan la doon wut. ba gis ko ba gis ko. Mhm. mooy bu ñu paquetee yenn somme yi dañuy wuti ji élastique. Mm. pour mën a. Euh, takk xaalis bi mhm. continuer liggéey. bi muy dem ci stage ci bureau bi di wuti ji euh, élastique ci la ñu fekk Baye Baara Cissé. tëdd ñu faat ko léegi bi moment boobu beneen pompiste bi di dem ci bureau bi loolu jël na ko kon bu fa demaatoon première fois dina jël loolu bu fa demaatoon quatrième fois dina jël loolu léegi nag jàpp nañu ni jàpp nañu Modou Bopp ak euh, Matar Gueye ni ni pour la moment ñoom la ñuy arrêté ba koroog mbir mi di gën a feeñ ndax ñoom la doon liggéeyal mais am na keneen ku mu doon liggéeyal muy inspecteur bi anam lu tax arrêté wuñ ko bu dee ku mu doon liggéeyal rek la ñuy arrêté inspecteur bi moom it waroon nañ koo arrêté ngir leen yéen la doon liggéeyal ba koroog dinañ leen arrêté mais lu tax kenn ko bokk koo xam ni total la bokk arrêté wuñ la képp koo xam ni mooy surveillant bi ak inspecteur bi ak nangam nangam kenn arrêté wu leen. c'est-à-dire ñi mu doon amal contact. contact direct yi kenn arrêté wu leen. portable service bi buñ ko bëggoon a xam fan la nekk. ci xare ñu police ak gendarmerie mooy. dañ koy tracé. tracé nañ ko ba jàpp parce que bërki démb femme bi ñu rey ndey kodd bi ñu rey euh, fii ci euh, gor euh, Ngor Ngor ah. ci Ngor mhm. même pas vingt vingt quatre heures jàpp nañu waa ji. fële ca Saly. tra portable la ñu topp ba jàpp ba jàpp ba jàpp ba jàpp ko ki euh, rayoon bijoutier bi. Mhm. ba ba teg ko fii ci. ci saako bi euh, mhm. xam nañu euh, déplacement yi mu def yëpp mooy caaro yi Pikine. technopole yooyu yëpp dañ ko tracé ba jàpp ko kon xariñu police ak gendarmerie weesu nañu boobu ba léegi ñuy wax ni ana portable bi kan moo ko kan moo ko jël mu doon loo xam ni lu doy waar ñuy ñaan xale yi nga xam ni tëj nañ leen 11 mois nañ leen àtte ba tey juge bi dégloo gu lenteur itam ah, problème la au niveau du Sénégal voilà voilà voilà et puis comme ñoo ñooy ñooy les premiers suspects parce que ñoo nekkoon ak moom xam mm-hmm. mais terewul xam naa ñu ngi wéyal yëf rek dem moom dafa yeef dañu jël temps c'est des ci mm-hmm. nga nekk mm-hmm. euh, kenn jugé gu la kenn àttee la kenn tegagu la benn daan mais dafay yàgg tey parce que onze mois chaque fois duñu jug di ah, wax lu mel mais dama jàpp ne li nga expliqué nii yëpp bu dee noonu la demee mhm. xëy na ñoom dinañ am xëy na xibaar yoodul am xibaar yi xëy na ñoom duñ ko tas mhm. mais bu fekkee ne ñoom am nañ yenn xibaar yi mhm. jàpp naa ni dossier boobu kon waroon na avancé pour ñu xam ñooñee ñu téye seen loxo taqe na ci laale na am déet wala am na keneen xëy na koo xam ne moom la ñuy protégé parce que comment se fait-il nit dugg fa tamit ba rey mën nga ne ci say doo xam mais bu fekkee ne tamit xam nga li naan ñi ñuy sàmm ak ñiy raas jëm bokkuñu euh, période ba ngay def loolu sa xel nekkul sa xëy na ca la xew fële yaa ngi ci lii leen keneen xelam a nga ca waaye tamit on sait jamais mhm. kenn xamul mhm. enquête rek moo ko mën a déterminer kon onze mois bari na te koo xam ni dégloo goo ko yaa ngi enquête xëy na bu fekkoon ne jublu nga ci lool même si bu fekkee ne li am ci réew mi bari na mais nañ leen bàyyi xel au moins euh, enquête ko ba xam fu mbir yi mujjee nga xam ñoom ñu xam seen sor fan la mhm. féete ñu euh, nekk ci leneen bu dee ñoom la yoon def liggéeyam ñoom la ñu libéré leen ñoom ñu xoolaat yeneen piste yoo xam ne am nañ yaakaar ni foofee la mën a tënku euh, jàpp naa ni loolu ña nga ca na na doon seen priorité rek surtout. Mmh. longue détention préventive yi daal franchement war nañ ci taxaw bu baax a baax a baax. moo feesal euh, prison yi moo feesal prison yi te prison yi tamit metti na metti na metti na vraiment. jaajëf euh, jërëjëf euh, soxna Alaaji Njaga boo ñëwee mu am solo léegi ngay wax ci askan bi ak di topp li nga xam ne moom mooy xew mu am solo lool Adja ñu bàyyi la rek ak sa gan waaw ah, jërëjëf soxna euh, sama laaj bu mujj rek moo di ki nga xamante ne dafa am hépatite lan la wër di def wala wër def ay ay maanaam di dox ay kii lan lan lan lan la war a lekk ak it naka la war a taxawee ngir feebaram mën a wàññeeku bu baax a baax Euh, euh, ki nga xamante ne dafa am hépatite moom si wàllu alimentation terewuñu ko dara ah donc euh, dañ ko wax ni ko lépp loo xamante ni niin niin la bu ëpp lépp loo xamante ne mooy xeet yi mel na kon ay beurre ay graisse ay diwtiir ah nan bu bare yëpp dañ ko ne naka wàññi néew ñu ko nag bul ko lekk dañ ko ne naka wàññi parce que gis nañ ne yooyu ma lim yëpp bokk na ci loo xam ne dana indi tension euh, dina indi yenn jafe-jafe cholestérol ak yu ni mel léegi nag dinañ kone ne itamit suukar bu ëpp na ko wàññi xorom bu ëpp na ko wàññi parce que gis nañ ne suukar bu ëpp ba gis nga ko mooy indi diabète xorom bu ëpp bi itamit dina indi li nga xamante ne euh, moom mooy euh, yenn yi nga xam ne dañ koy faral di am yi léegi muy ay AVC wak yone man kon ki am hépatite bu fekkee dafa bëgg a gudd fan ak hépatite am dafay moytu lépp loo xamante ne su ko defee mu mun koo indil ay jafe-jafe ba feebaram mën a gaaw yeewu te boo jëlee tey exemple boo diwee sa dàll ba mu niin tey boo bëggee dox ci biir dàll bi da am jafe-jafe ndax nii naayu tànk bi res nag kom lu dugg moom moo koy reesal boo ko joxee niin niin ëpp bi pour mu liggéey liggéey ko yaa ngi koy defloo effort bu bare donc yaa ngi koy sonnal euh, ci biir loolu aussi dañuy gis ne virus bi boo fekkee nin nin bi bare na sa yaram daf koy yombal pour mu yeewu kon ñu moytu li nga xamante ne moom mooy euh, graisse bu bare bi donc terewuñu ko lu lu ne ko lii ngay lekk waaye nag si wàllu gerte euh, dinañ ko tere ñeent yi dinañ ko tere gerte bi nga xam ne dafa xuur gerte bi nga xam ne dafa nëb gerte bi nga xam ne dafa larax ak gerte bi nga xamante ne dafa euh, maanaam gunóor bi da ko muucu ba mu def ay taches yu weex yooyu xeetu gerte dinañ ko ne loolu moom bu mu ko laal waaye dinañ ko tere tamit lépp loo xam ne lu xëm la parce que li nga xam ne dafa xëm euh, loolu même ki amul hépatite sax daf lay indil jafe-jafe ba ci gerte yi ma lim même ki amul hépatite sax dafay yàq sa rees kon ki am hépatite aussi dañ ko koy wax na ko moytu xam-xam yi moo xam ginaar ngay lakk moo xam jën la moo xam yàpp la moo xam café bi nga xam ne moom la ñuy saaf bu mu xëm baaxul bu ñuy defar seen kafe yi ñu def ko ba nga xamante ne du xëm parce